escadron bi Saint-Louis dafa dem université dem bobu nak si réquisition bu recteur joxone le commandant de compagnie de Saint-Louis qui a la bien responsable de Saint-Louis pour que nous euh, djema pour que dara am université bi pour restauration parce que nous ñoo assurer

Euh, ñetti junni étudiant ñu ñëw wër gendarme yi bi ñu leen wëree di leen sànni xeer ñu si gaañ gendarme yu bëri gendarme yi di daanu ki yore woon kaaraange gendarme yi foofu euh, maanaam li ko euh, loi bi may moom mu estimé que ni il faut mu jéem a dégager gendarme mi ndax ñu ngi commencé woon di di gaañu yu metti loolu moo tax mu génnee armam tiré si kaw pour jéem a

Je suis tamit étudiant qui a daf si Je suis que tax la parce que gendarmerie gendarmerie pour askan bi la liggéey bi ñu def pour askan bi la ñi fa tamit askan bi ay rak am askan bi askan lañ lañ université dañu am ay université am ay université ñun di gendarme université donc lu melni lu ñaaw ko bëgg mais nak yalla mo ak ak dogalam moo tax koy rëccu bu baax a baax di njaal euh, au nom du président de la république ak ministre des forces armées bi yoré kaaraange bi ak haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire le général de corps d'armée Meïssa Niang ak gendarmerie ak gendarmerie yépp donc di jalé étudiants yépp yëpp yi nekk Sénégal muy Ndar muy Dakar muy Ziguinchor muy fenen di leen jalé ñom ñépp di jalé sen njaboot di jalé Sénégal yépp ndaxte li am nii ñun tamit dañ si am wàll te ñoo ngi koy rëccu lool loolu laa mën a wax di wax tamit ni enquête ubbi nañ ko te lépp loo xam ni lu lu ñu war a euh, saytul si biir dinañ ko dinañ ko dinañ ko seet ba gis ko responsabilité yëpp dinañ situé wu bu soobee yàlla maa ngi sant di